bismillahi irrahmani irrahim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxa almulku lilah walhamdulilah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma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 tax mu yoru kurusam li jëkkëram moom ci moom tax mu yoru bantam waaw ba ko al asmaa yi laajee dégg ngeen lam ko tontu walillaahi minni jaanibun laa udiuhu nee na al asmaa yi mu ne fa fahimtu annaha imraa saaliha zaatu zawjin te te jàmmalu la nee na asma yi na ca laa xame ne jigéen ji kon jigéen ju baax la benn boroom jëkkër la mu bëgg àqu yàlla ji yàlla jot ci àqu jëkkër ji jëkkër ji jot ci <laughs> loolu nag lu jafe la <laughs> li way li fi ñu toll nii ci tomb bii ci wàllu temps lu jafe la jigéen ñu jox yàlla àqam jox jëkkëram àqam ndax am na ñoo xam dañoo defee na toilette bokku ci ba bu ñu nekk ba seen diggante ak seen borom moom mën naa sotti waaye seen diggante ak seen jëkkër moom la yàlla xam doy na waaw du defaru mukk wax la ko tey waaw <laughs> ndeysaan suma xarit bi dafa gaañu ndeysaan yal na ko yàlla yërëm mu ne maa kaay kaa dem sama kër ma ne ko lu xew mu ne maa ah, kay <laughs> sama <laughs> mu ne ma sama jabar ji nee na sa sa bi la mën ne ko waaw mu ne ma kon kaay wax ak moom ma ne ko waaw lu xew mu ne ma en tout cas maa ngi compter ay weer yoo xam ne naafile gi moo ko gën a lal bi waaw ma ne ko daa déggut daa déggut waaw euh, weer wi ñu nekk su ma sànna teru première bis bi ci lañ daan def xijaab day ren xëy na corona bi tax na defuñu ko waaye xijaab maanaam sol yére jullit jilbaab warta xañ jigéen ji defaru ngir jëkkër ji waaw sol ci yu rafet yi sol ci yu xew yi waaye nag yu xew yeeg yu rafet yëpp muur saw yaram ba mu des xar kanam ak tënk waaw waaw moo tax ruq soosu su ama am solo la <laughs> al asmaa yi nee bi kon soxna si tontoo rek la xam ne annaha imraa saaliha zaatu zawjin tatajammalu la waaw waaw waaw defaru ngir ngir sa sa sa sa sa borom kër muy bant bi ci tusngal ji góor góor lu ngir jaamu yàlla muy kurus gi ci loxo bi waaw yooyu nag dañ koy jàng boole ko waaye defe na boo nekk ci diini rek aha la ca des moom sa yoon nekku ci déedéet du noonu di parce que nit nit la te dafa nite lu jar a bàyyi xel la yàlla na jàmm yàlla nekk ci yow ak sa njaboot ma ñëw ci beneen tomb ci temps ba tey mooy waxtu wu ne dafa am jëfi boppam hmm? waaw waxtu wu ne dafa am ay jëfi boppam soo jëlee li nga war a liggéey tey liggéey ko ëllëg li nga war a liggéey jeudi nga def ko vendredi tooñ nga jeudi tooñ nga it vendredi waaw li nga war a def jeudi nga bàyyi ko vendredi nga def ko tooñ nga jeudi tooñ nga it vendredi jëfi jeudi ji nañ ko def jeudi ju vendredi ñu def ko vendredi tey bu njëkkoon ba samedi ñuy nodd di woote juma kenn du wuy si kenn du wuy si lu tax parce que jëfi jëfi jullit juma vendredi ko moom jeudi moomu ko samdi moomu ko kon yambaxi lil mu'min an yaarifa maa yatatallabuhu alwaqtu min amali alqalbi wal lisaani wal jawaarih naka noonu booy booy jëf bi ngay booy julli suba booy julli suba dafa am ci julli gi loo xam ne xolo ko moom ah waaw waaw mu am ci julli gi loo xam ne làmmiña ko moom mu am ci julli gi loo xam ne cëre ko moom cër yee ko moom loxo yeeg tànk yi li xol bi moom mi ngi tàmbalee ci yéene gi nga yéene ca xol ba fas yéenee julli jullik suba allahu ko moom mu tax na ko jël ba mu jeex tàkk nga fas ci sa xol bi yéene julli suba waaw ji nga xam ne fartas yàlla la waaw booy roy ci imaam nga ne ma fas yéene roy ci imaam ca xol ba am na lu ci làmmiñ moom mooy njàng mi làmmiñ njàng mi jàng faatiha teg caw saar première rakk deuxième rakk jàng faatiha teg caw saar sabal yeeg ci rukko sàbbaal yi ci sujjóot taaya lu lépp làmmiña ko moom ci julli gi jox ko ko ba mu jeex tàkk moom it boo ca noppee cër yi tànk yeeg loxo yeeg làmmiñ weeg bët yi tànk yi ci ngay taxawe booy rukkoo ñooy lemu booy sujjóot ñooy lemu loxo yi ci ngay kàbbare benn nga teg leen ca sa sa sa sa dënn ñoom ñaar boo bokkee ñay teg ca dënd ba walla nga wàccee ñoom ñaar bu fekkee da ngay wàccee <laughs> léeg-léeg la dëgg ci nag coow lu bare bare bare mu yéen mbokk yi man de la maa ji waxoon ne ma ku julli nooy def da ngay teg sa loxo ci dënnam da nga koy wàcce dama ne ko yow boo ciy def loolu rek laa ko laaj yow moom boo ciy def mu ne man damay wàcce ma ne ko jërëjëf continuer di wàcce man nag damay teg ci dënn bi waaye bàyyi ba ma continuer léegi maa yow mu ne ah, ma ne ko bu ñu am problème yi ma bëgg laa bàyyiloo li ngay def ñëw ci man wala nga bëgg maa bàyyiloo li may def ñëw ci yow buñ am problème boobu xam ma ne ko nañ wuti ki nga xam ne du ci def benn ñu fexe ba mu ciy def benn rek jàmm nañ ñooy <laughs> jàmm nañ ñooy kenn mësu koo gis rek waaye tubarkàlla ku def bii bii moo war boo ko defee su julli gi nangam nangam buñ nekk mukk ay commer ay ay ay commissaire waaw walla ay euh, procureur rek àttekat mukk waaw ngeen baal ma ci ton boobu misaal moomu xol daa war a am ci julli gi wàllam làmmiñ am ci wàllam ay cër am ci wàllam waaw su ko defee Cheikh El Hadj Malick Sy anhu nee na sàcc yépp sàcc ci jullee ci raw bi sa sariqatu waaw nee sàcc waaw professeur Rawhan euh, francis na téere ba tarjuma na ko ndeysaan lan mooy sàcc ci julli xam nga kuy julli te xol bi am ci wàll boo ko ko xañee sàcc nga làmmiñ am ci wàll boo ko ko xañee sàcc nga cër yi am ci wàll boo ko xañee sàcc nga waaw allahu akbar ñu ne dëpp sab jë jë bi jëlagut nga ne ko coppet sàcc nga ndax tànk yi bi mu taxawee dafa war a taxaw lu yàgg moom tànk yi jël na wàllam ci julli gi bi nga suggee rukkoo gannaaw gi jël na wàll tànk yi jël na seen wàll loxo bi jël wàllam xol ba jël wàllam làmmiñ yu jël wàllam moo tax danga nga yàgg na julli ko xajaam sàll sunu maam jënde sunu baay jënde sàndaja taal sunu waajur wa boo siggee ne sami allahu liman xamida nga taxaw ba cër yépp ku ci ne jël sa wàll rabbana wa lakal hamd boo su jootee ne fa tekk moom tam ba cër yépp jël seen wàll waaye ne na teg sab jëri ne ko cuut ne ko ceppet mu ne amu ah, ne sàcc sàcc nga yëfi yëfi eh, yëfi yëfi jë bu dee roko roko rek siggiwaat am na ñoo xam ne roko taf-taf lañ koy def waaw roko rek siggiwaat mu ne amu ah, ne sàcc nga sàcc nga yëfi jàmbur néew moo tax ñoom ñu mënoon a julli julli jar lu nekk réew mii réew mii waaw Euh, Ibra Ndiaye Pikine ginnaaw raay <laughs> Ibra yàlla na ko yàlla yokk réew mii Pikine ginnaaw raay nee na réew mii ah nee nag jàkk yeeg jumaa yeeg ñii mu ne ah ba noppi faat waxtu jaaduwul <laughs> waaw Ibra raay moo koy wax buy jeexal rekk na yàlla yàlla soqali daara yi rawatina daara yi kokki amin ndeysaan Ibra Ndiaye Pikine ginnaaw raay ci wax sa xalaat lay dugg waaw ay wax sa xalaat yi tubarkal lu ne ngi ci am solo lool ku dugg rek bu waxee ba noppi dëgg la nag am na ay sànni xeer ak <laughs> leblanteeg fa yoog ñoom seen yëpp tabarkal la waaw Adja Sode Dieng ma bu duggee <laughs> léeg-léeg mu dugal baatu wolof boo xam ne fokk nga jël bindukaay bindu ko denc <laughs> léeg-léeg mu ne nawetub daaw bi fi la nu fekkoon Adja Sode mu ne nawetub daaw bi fi la nu fekkoon ñu ne ah mu ne néeg bi fi seet seet na xam nañu ko c'est kenn mësu koo gis rek nawetu daaw bi fi la fekkoon néeg néeg bu fi seen xam na nañu ko mu ne wax nga dëgg de fekkee fi la nawet daaw bi fekk wax dëgg yàlla mën ngaa xam ne néeg yi doon seen yu seenut alaa kulli xaal Aboubacar ak Omar Aboubacar moo toogoon ca xilaafa ga kera ba alayhi salaatu salaam wàcceeb liggéey Abubakar bi mu fi jógee Omar ibn Xattaab moo toog waaye mu defoon ko benn ndénkaan en tant grand frère am ndeysaan Abubakar Siddiq defal ko Omar seet mu ne ko Omar mu ne ko labbayka mu ne ko i'lam anna allah anna lillahi amalan binnahaar laa yaqbaluhu billeyli waa amalan bi leyli laa yaqbaluhu bin nahaar ca ndénkaan yi loolu daf caa bokkoon Omar ibn mu ne ko ah mu ne ko mon frère ndeysaan sama xalifa mu ne ah, mu ne ko dama lay jox baat yoo xam ne bu ko fàtti mukk mu ne waaw mu ne ko yàlla daa am jëfi guddi yoo xam ne koo ko ko defal bëccëg bëggut mu am jëfi bëccëg yoo xam ne ku ko defal guddi bëgg bëggut jëfi bëccëg yi nañ ko ko defal bëccëg jëfi guddi ñu defal ko ko guddi loolu moo tax tusbaari gexe kenn du ko def gexe tusbaar kenn du ko def waxuma fay ga nag waxuma fay ga tusbaar daa am heure bu ñu koy julli gexe daa am heure bu ñu koy julli kii ci bëccëg la kii ci guddi boo jëlee tisbaar ñeenti rakkaa la gee ñeenti rakkaa la boo doon julli tisbaar di jàng ca kaw jàpp ne yaa ngi julli gee tisbaar yàqu boo doon julli gee jàpp ne yaa ngi julli jàng ko ca suuf julli ga yàqu ci tayeef lan laa bëgg a wax rek mooy Omar ne Abubakar nee na Omar yàlla daa am jëfi guddi yoo xam ne bëccëg jëfi bëccëg yoo xam ne ko defal guddi bëggut mu am jëfi ba guddi yoo xam ne ko defal bëccëg bëggut amalan bi nahaar laa yaqbaluhu bi leyli amalan bi leyli laa yaqbaluhu bi nahaar loolu laa bëgg a wax mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk seen njaboot yàlla fi yàlla jële feebar bi fi nekk allahuma inna hada al marada jundun min junuudika tusiibu bihi man tashaa wa tusrifu an man tashaa allahumma asrif anna haadha almarad wa an ahaalina wa zurriyaatina mbokk yi bu kenn defee ne rek jëf daal mooy heure bu la neexee fu mu la neexee nu mu la neexee bal al muhim mooy nga xam waxtu wu ne lañ ca war a def ak nuñ ko war a defe waaw moo tax ibaadaat yi am ay waxtu gone ga daa ñëw ca kër ga ndeysaan di naafila walla julli julli yoor yoor yaay ja woo ko moor xuja mu lànk bañ koo wuyu moor xuja mu lànk bañ ko wuyu kooku dafa xàmmeewul bunt bi ñu toll waaw awlawiyaat yi ne dana xam ne jullig naa fi la wuy yaay ko gën a nekk farat mu tax yaay jëmmeere ko rek ñaan ko ñaan goo xam ne ba at may la tëgg génn dal na ko dal na ko Muhyiddin ca kaw lax la nekkoon waaw waa jox lool ci mbirum yaay waaw ngërëmul yaay ak baay li zalika looloo tax yàlla tabaaraka wa taala yu bari ci ibaadaat yi ak farata yi ñuutal ko ay waxtu laa yajuusu taqaddumu alayha wala taaquru anha wutal koy waxtu yoo xam ne def ko te jotagut jaaduwut bàyyi ba mu weesu nga door koo def jaaduwut hmm? nan ko jàng ñun ñépp bu jotee ñu def ko moo gën def ko te jotugut moo dem moo gën bàyyi ko ba mu weesu nga def ko waaw sunu baram mi ngi wax ci yooyu ci mbirum julli acca inna salaata kaanat ala al muminina kitaaban mawquuta loolu la yàlla wax nee na julli julli dafa am ay waxtu te farata la ci képp ku gëm inna salaata kaanat alal muminin kitaaban mawquuta moo tax ñuy góor góorlu bay xam waxtu julli yi euh, alaaji wala boog sëriñ mbàkki buso daana wax ne ci faratay la bokk ci faratay la bokk wan waxtu la julli gee wan waxtu la julli fajar wan waxtu nàngam wan waxtu nàngam waaw soo jëloon tey ci tisbaar ci suba gi ñu ne fajar gaa ngi ci six vingt six waaw ne la tisbaar jaa ci treize heures vingt quatre tisbaar jaa ngi ci treize heures vingt quatre ñu la tàkkusaan jàng ci seize heures quarante deux ñu la timis jàng ci dix neuf heures huit gee gaa ci vingt heures léegi loolu ki sàmmoonteeg moom nga xam ne xam na leen nga xam ne xam na leen da ko war di def ci waxtu woowu bu fajar jotee loo jàppoon bàyyi ko bu tisbaar jotee loo jàppoon bàyyi ko bu takkusaan jotee noonu bu timis jotee noonu boo gayee jotee noonu danay wax nag na sunu penc mi nag ñoom fajar dana jot ñu toog lu yàgg tisbaar dana jot ñu toog lu yàgg yàgg dana jot ñu toog lu yàgg daan julli gee léeg-léeg te desoon nay minute waaw kenn amul foo ko jooye waaw kenn amul foo ko jooye mu ngoog kon li kulli waxtin amalu waxtu yaa ngoog ci julli boo demee ci koor fa man shahida minkum shahra falyasum waaw heure bii fi nekk nii bu ñu ne woon ah sedd na ndaw ku ndaay na nañ woor kon remplacer ko koor gi lislaam du ko nangu mukk moom kay weeru koor mooy ñëw ñu war ko ca ndeysaan suma magum daar mi génn àdduna bërki démb ndeysaan mursid iyaan càmm yàlla ko yàlla yërëm xam naa su weeru koor ñëwee ñëpp ay xam waaw bis buñ seen too weeru koor bi commission bi toog siinuñu ko ñu taal tele bi siinuñu ko ñëpp ay xam seen xel dem ci al mursid Ahmed Iyane Thiam ndeysaan ak yeneen jataay yu bare bare bare bare ala kulli xaal weeru koor fa man shahida minkum shahra falyasum dañ ko wutal aw weer woo xam ne ca lañ koy def bu dee aj alxaju asuru maalumaat xool nga moom tam temps am la aj daa am ay weer yu ñu xam waaw bu ñu waree wala boog bu ñu umee koor bu ñu waree ba ca aj ga ñetti weer yëpp weeri aj la kum neex teel a dem def tamattu kum neex yeex a dem def ifraat mbaa xiiraan nangam nangam waaw bu dee ci asaka mu wutal ko temps wa aatu xaqahu yowma xasaadi bis bi ngay récolter li nga bay génneel azaka waaw bis bi nga atalee sa xaalis génneel azaka waaw waaw yooyu yëpp macha allah ci ci ci li kulli waxtin amalu ca la bokk mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot mu ñëw ci taxaril awqaat alfadila maanaam wër ak gëstoog seet waxtu wi nga xam ne waxtu yépp a baax waaye yooyaa ci gën dàq ca waaw su fekkee bokk nga ci course bi nga xam ne mooy départ ilal xayraat yi di tànn waxtu yi nga xam ne ñoo gën ci waxtu yi ndax boroom bi subhaanahu wa taala daa bind te yëmalewut mu am ay waxtu yoo xam ne heure promotion la fi ne ñi ci pénc mi te yoo nekk ay opérateur téléphonique léeg-léeg nga romb ñu ne la opérateur nangam daa am euh, promotion bis boobu boo jëndee cinq mille li ngay am day ëpp la nga daan am su min wi jotee boo jëndee cinq mille boo ko dugalee cinq mille képp lay tekki yàlla ci waxtu yi def ci am yu mel noonu inna li rabbikum fi dahrikum nafahaat fa taarradu laha yonente ba nee seen borom dafa am ay heure yoo xam ne heure promotion la rikk góor góorlu leen ca ah waaw waaw boobu ma jàng rawaahu tabaraani min xadiis muhammad ibnu muslima al albaani tudd na ko ca al jaamiu saxiir ca daifu jaamiu al jaamiu saxiir waaw mu ngi ci pénc mi nekk nit ñaa ngi koy jëfandikoo kon waxtu yooyu euh, yàllaa ko moom moo ko ko jagleel moom mi nga xam ni ne yaxtasu bi rahmati man yasha waxtu yemuñu waaw ndax wa rabbuka yaxluqu maa yashaa wa yaxtaar maa kaan lawmul xiyara yàllay tànn bi sàngam gën bi sàngam wala gën koo sàkkan lay jëf heure sàngam gën gën a sàkkan la heure sàngam ay jëf nga xam ne boo jëfee ca heure booba la nga ci am day ëpp par exemple tey bu nit joxoon sëñ Mbàkke Sylla million tey yàlla def cee dolli juróom-ñeenti million ak bi mu ko jox muy fukki million mu dencal la waaye bu dee ci koor gi boo joxee million duñ ko def duñ ca teg juróom-ñeent képp juróom-ñaari téeméeri million lañ cay teg bu dee ci biir koor gi aw loolu ci bind yi ci kanam incha allah bu ñu dégloo waxtaanu samedi vendredi samedi ak dimaas dina ñëw ci bind boobu jëm ko wéyal jërë ngeen jëf ak si nañ fa rekk te jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seeni kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab firiñ fàncalan ko ci wolof ñaanal leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu àndandoo bii C3S nekk fële ci yoon rak loo wa ca Kër Masaar yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ca def ci suñuy poos dara kenn àndaloon coxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. laahi wa barakaatu. laahi wa barakaatu. laahi